chers internautes KS TV bonjour maa ngi leen di nuyu di leen dalal comme ni ma leen koy waxee man Binouche rek mbégte lay am saa su ne di leen dalal seen émission préférée bii di GPS Tour GPS Tour nag te dafa am gan bu spécial mais nag duma leen wax ku mu doon képp ku ci bëgg a xam dara topp mag mag sama caméraman ñu woon leen tey ban daanaan laa leen tegal ci table bi ci GPS Tour

chers internet KS TV li ngeen doon xaar egsi na sama gan ngeen yàkkamti woon gis ñoo ngi nii ci buntu néegam xaar leen ma fëgg ko rek ngeen xam tey kan leen tegal ci seen émission GPS Tour. salaamaaleykum. Aliou nuyu naa noo def ma xëy naa bu baax soxna Binouche naa la jàmm. chers internet KS maa leen ko digoon. comme li ñuy wax rek dige bor la maa leen ko diggoon moo tax indi naa leen ndaanaan koo koy kan koo koy Alioune Alioune Diop surnommé l'homme au sans maillot xam naa su ma leen ko waxee dina leen jaaxal loolu nan la mën a nekkee mais dinaa ko nuyu ma daral ko tey ngeen di xam kan mooy Alioune Diop Alioune nuyu naa la soxna bi nu fay naa la Alioune noo def fii di sant yàlla bu baax a baax Aline tey ñu ngi lay dalal euh, ci émission GPS Tour GPS Tour xam nga ni ndaanaan yu mel ni yow lay dajale rek mhm. comprendre nga euh, première question nag du lenn lu dul rek mhm. kan mooy Aline Diop bon maa ngi lay nuyu waat bu baax di la fay di nuyu chers internautes yi seetaan kay seetaan di leen comme ni ñu koy waxee comme c'est la télévision autrement donc ñu ngi di nuyu di leen fay bu baax Aline Diop nag kenn benn jeune la boo xamante ne bon mi ngi juddoo Dakar yoroo fi màggee fi bëgg sport nag bëgg particulièrement benn équipe bu ñëpp xam am na ñoo xam ne bu ñu gisee sama kanam du ñu am ay doute xam nañ ne un fervent supporter de l' Olympique de Marseille la donc euh, loolu laa mën a gum wax ci man kenn ku ñàkk taalibe la waaye bon supporter la bëgg loolu football particulièrement équipe bi di Olympique de Marseille. ok su ma déggee say kàddu mooy yow sénégalais. bien sûr sénégalais la 100 pour cent Papa Diop Yaay Ndiaye donc je pense que kenn gënu ma nekk sénégalais. juddoo Dakar yoroo fi màggee fi aussi. non man daa am lu ma jaaxal parce que dañ lay surnommé. Mhm. l'homme sans maillot. Mhm. te loolu xam nga maanaam kooku nawee rek yow on dirait que yow doo sénégalais marseillais nga. waaw waaw mën naa ne bu fekkoon beneen nationalité am na peut-être mën na nekk marseillais mais sénégalais la nag 100 pour cent juddoo Médina yoroo parcelle donc euh, di liggéeyee Sandaga donc je peux dire que sénégalais la 100 pour cent. laaloon ñu tuuti si sa bon sama enfance nag mën naa ne li ma ci mën a wax lu ndaw mooy bon juddoo naa Médina balaa may xam dara tuxu si parcelle parcelle laa defee sama jàng yëpp école primaire école C après avec le temps ma dem fa laa jàngee arab aussi jàng naa alquran jàng naa arabe euh, baabu salaam bi nekk unité 8 sama enfance daal mën naa ne ci jàng laa ko passé mais ba ma demee ba ci biir xam nga rek. Euh, jeune u Dakar yi bu ñu demee ba toll fenn parfois wut xaalis da leen di jaral bàyyi jàng bi yëpp dem nekk ci mbiru commerce bi mais bon je peux dire que ni sama enfance maa ngi ko passé tout à fait normal comme les jeunes dem jàngi école di jàngi arab ba yàlla def peut-être tey ñu vidé dem ci commerce bi bon voilà loolu laa mën a gum wax ci man ci sama enfance quoi. mais Alioune yow da nga maa jaaxal. Mhm. yow nee nga fi sénégalais nga. Mhm. Alioune bi ma xamee ba tey ay yow ay tuni marseillais rek ngay sol conseil des ay maillots. Mhm. Aliou lan moo la xiir yow ci ngay sol ay mayo Marseille te yow musuma la gis sa nga sol maillot Sénégal même équipe nationale bi musuma la gis nga sol euh, mayo Sénégal. waaw loolu dëgg la nag man moom bañ naa ko ba depuis 2012 laa commencé ni léegi dootuma sol leneen lu dul mayo Marseille su may génn di dem boutique ba sax dama koy sol li ko waral mooy passion la ñu bëri duñ ko comprendre dinaa profiter ci occasion bi nettali la benn anecdote comme man ay yére laay faral di jaay. am benn waay boo xam ne <clears throat> dafa ñëw Sandaga gis ma fa ay dugg di génn chaque jour mooy gis may sol mayo comme ni ngeen koy gisee mu dem ci ki may liggéeyal ne ko yow kii ngay liggéeyal ngir yàlla doon ko sarax may ko ay yére kooku ne ko pour lan mu ne ko que kii ay mayo rek lay sol xanaa amul yére yu mu sol kooku ko ne lu tax nga wax mu ne parce que kii mosuma ko gis mu sol yére bu normal mu ne ko pourtant place bii de moom moo ko moom waa ji ko mu ne ko la mënee moom place bi di jaay chemise yu cher ay yére du ko sol mu ne que Marseille la bëgg te man mayo Marseille moo ma gënal moo ma gënal yére lu mu cher cher boo ma 10 mètres Getzner ak benn maillot marché ma jël maillot marché parce que moom laay sentir te aussi moom laa gis ni mooy moom laay teg sama yaram daal yëg ni teg naa ci dara. waaw attends wax ma sérieusement dañ lay fay wala. man non dañ ma fay passion la bëgg-bëgg la te aussi mën naa ne bëgg-bëgg yu nekkul tamit lu ñëw bett ma daal parce que sama papa bi ma jur marché la doon supporté. il paraît que bi Marseille di jël Ligue des champions juddu na. mais attends loolu waroon mën a tax yow nga daal di bëgg Marseille nii nii nii nii am na lu làq ci suuf da boo leen posé bi lii ma la wax lañ ñëw dugg ma ko nag te nit moom peut xam nga luy passion dëggantaan. bu baax parce que man bëgg Sénégal mais man du ma fa nekk di sol maillot Sénégal. waaw maillot Sénégal naa ko sol pour être à la mode comme gars yi nañu koy defee parce que bu Sénégal demee compétition internationale da ngay gis ni ñu bëri même jigéen ñi dañuy sol pour wanewu mais Sénégal pour man kenn du ne bëgguñ ko mi ngi su ñun mais je pense que passion dafa nekk loo xamante ne du lu ñu mën a expliquer. mais attends lu tax yow sa maillot yi defoo ko mode comme ni nga ko defee tendance mais yow da yow bi ma la xamee ba tey bon ay mayo rek ngay sol. waaw parce que mooy comme li ma la wax sànq rek bu fekkante ne nit li muy sol ci lay sentir boppam. am na ñoo xam ne bu ñu solee peut-être yow bu naam boo solee grand boobu bu rëy doo nekk à mais man mayoo laay sol di ko demee fu ne ah, mooy sama identité déjà beneen anecdote bi ma lay wax benn jour dama génn ci biti tëdd ba ay une heure du matin bëgg jënd dara wàcc ci suuf kenn gis ma rek dem ne ma taxawal lii moom dama koy immortaliser ma ne ko lan la mu ne ma gis naa la sans maillot massé ma ne ko non mu ne ma si ma xëcc sama yére wan ko ne ko naa ko ci biir mu ne ma non man kon yow ma ne ko du ma génn sans moom du ma génn sans moom parce que dafa bokk ci man mais xaaral Aliou Diop yow dañ ñoo dama lay manqué de respect mais mm-hmm. damaa dégg ne am nga sama mayo yow sama mayo yow loo koy doyee tamit. waaw loolu dëgg la am na cent mayo de Marseille. cent cent mayo Marseille am naa ko. ba cent kay. te mayo ñi ngi fi boobu am na la preuve am na journaliste BBC bu ñëwoon bi ma defoon reportage bi ñu ko waxee loolu gëmu ko bi mu ñëwee xool mayo yi après ci la ne ci la woo chef am ne ko dëgg la gis naa am na tant de mayo mu ne ko jël ko. est-ce que mës nga am benn man waaw am naa benn ma maillot Sénégal mais bon dama koy jënd pour compétition bu jeexee. benn en tant que parce que Sénégal ñu ñëpp ko bokk aussi soxlawuñu sol maillot pour ñu wane ne Sénégalais la quand même. te pourtant yaa ngi sol sans maillot pour wane ne yow Marseillais ah, parce que loolu mooy sama identité rek. léegi jógal ñu nañ dem moom la ku maillot yaa ngi fi. chers internautes KSTV comme ni ma leen ko waxee woon rek sama invité spécial bu kenn ku dul Alieu Diop borom sans maillot comme ni mu ko waxee <laughs> yaakaar naa ne mayo yaa ngi nii weddi gis bokk ci nañ leen dem aw ma temps wu benn mayo mais dinaa ko ci laaj mayo bu ne lan lay représenté pour moom Alieu Diop. Mhm. say maillot ngi nii. gis nañ leen waaw. Mhm. comme waaw maillot bu nekk nag am na lu muy représenté comme ni nga ko waxee bu la neexee mën nga ma ne maillot bii lan lay représenté pour ma wax la ak tam maillot bu ne ban année lañ ko Marseille loolu yëpp jàpp nga parce que maillot bu ne maa ko jënd te bi ma koy jënd xam naa lu tax ma jënd ko. waaw Aliou lu tax nga toog Sénégal. moo réer xëy na moom. <laughs> waa mhm. moo fii sa premier maillot. nag maillot bii ñu def Sony Ericsson la. waaye bii ñu bind seen émission parce que c'était en 99 2000 boobu moom la ma suñu baax njëkk a jënd xaw ma dara ci may moom la ma njëkk a jëndal comme may 1998 99 sa maillot yi xanaa benn la ja non franchement nag maillot a yomb fii a benn 10 000 non. non Alioune lii benn 2000 la. sérieux sérieux bii nga gis nii maillot bii. presque vingt cinq mille lay def donc maillot la comme ni ñu ko mën a. noix bi noix orange waaw parce que maillot la. c' à dire maillot bi marché dañ ko génnee ay liñ ci defar bëriwul deux tons la mën nga sol noir bi mën nga sol orange bi aussi. waaw parce que ñoom bon te maillot bi dafa am lu muy représenté lu mu. recto verso. recto ba pare ci biir recto bi ci biir dafa am emblème mu Marseille bu ñu ci def boo xamante ne sa parle de nous bon bu bu ma la ko mën a liiralee mooy peut-être on porte l'azur sur nos épaules. beneen bi et nos orange comme comme son les fleuves cela veut dire cela veut dire que malgré tout dañuy continuer di supporter Olympique de Marseille les couleurs son celles sont celles de nos valeurs donc lii dafa am na muy représenté maillot bi du rek yére bi nii mais maillot bu ne am na loo xam ne moom lay représenté daal d'accord par exemple maillot bii nii bleu bi ak blanc bi mooy maillot bi Marseille bu mujjee jël suñu dañ ko war a am parce que dafa nekk loo xamante dafa am lu bëri fàttali ñun nga xam ne fekkee nañu titre 2010 bi donc ça représente. kon yow daa pour yow obligation la yow nga am maillot yi. effectivement parce que lii sama identité la comme ni ma la koy waxee lii su ma ko amul donc mënuma wane sama appartenance ci Marseille ko maillot bu ne ak euh, li muy représente saa yu ma ko solee xam naa ce que ça veut dire ak li tax ma sol ko. ñun ñoo ko gisandoo de Alioune daal foowul ak sans maillot yi man dafa ma dañ maa tiital sax man waa Alioune dafa am benn affaire bu particulier bu ma gis ci mayo yi. Mhm. mooy mayo bu ne rek. Mhm. am na benn étoile bu koy représenté. waaw posé nga ma question bu ma neex nag.

jaaxal na ma de mbaa jommalu leen rek waa Aliou nañ toog tuuti. Mhm. waa KSTV ñun ñoo ko gisandoo de ak mayoom yu bëre yi man daal mënatuma cee wax mais nañ continuer tuuti rek euh, Aliou li ma laaj mooy euh, demoon nga fi Kaluga mhm. jëleli ay euh, ci coupe du monde mhm. ban relation nga am ak waa KSTV waaw relation bi ma am ak waa KSTV moom relation bu extraordinaire la relation la bu étroite aussi parce que yàlla dafa def euh, ma xamante ko waa KSTV ci lu banal su ma nee lu banal ci lu gàtt euh, ñu am ci man confiance euh, am liggéey boo xam dañ ko bëggoon mu gis lool waaye nag oyof lool ci ñoom ndax dañ ma ubbil bunt xam nga nit ku la jox arme ne la demal guerre jox la arme yëpp li ngay défendre ak li ngay guerre je pense que ne foofu amatoo dala looy wax. ñu jox ma tous les moyens nécessaires pour man ma dem représenter leen Russie pour mën di leen jox information yi nga xamante moom la ñuy soxla ci coupe du monde bi ndax dañoo gis ñëpp dem ñu foog ne ñun mënuñu dem alors que ñun mën nañu dem avec les moyens du bord KSTV équipe bi yëpp def le tout sortir les gros moyens def tout pour que ñu mën dem euh, comme Sénégal dafa dem coupe du monde te coupe du monde chaque 4 ans la mu nekk loo xamante ne mbégte la pour man honneur aussi ci man ma dem représenter waa KSTV leen defal euh, coupe du monde bi ba yàlla def ñu xam ni mu mujjee. Ah, macha allah am na solo ban rôle nga représenté foofu ban rôle nga am ci KSC. waaw rôle bi mu fa am nag mooy euh, man maa gérer li wàllum sport lép loo xam ne affaire sport la nekk ci biir KSC bi man maa mu nekk loo xam ne nag confiance bu ñu ma jox ma sant leen ci gërëm leen xëy na man kenn xamuma fenn c'est la première fois peut-être ma nekk ci boîte wala ma nekk ci télévision di def ay émissions daal. buñ ko doon jaay tey mënuma ko jënd donc rôle bi ma fa am mooy def affaire lépp loo xam day wax ci sport donc ñu war fa am ay rubrique yu am solo yu ñu préparé parce que vous n'êtes pas sans savoir que KSTV c'est la télévision autrement te faire la télévision autrement c'est faire autre chose que les autres parce que les autres mën nañ ñëw am méthode bu ñuy defee sport mais ñun dañ koy def naturellement mu nekk aussi lu lu existant aussi te sport yaatu na ko waaw du rek euh, football du rek leneen la mais pare nañ daal pour mën a jox information sportive yëpp li nga xam ne moom la ñuy soxla waa KSTV nañ préparé xam ne Lune Diop mi ngi ñëw pour waa KSTV fas yéene leen jox sport ba ngeen doyal ba ngeen mànd ci lool. waaye yow bi ku la joxul sport xaw ma kuñ koy jox ak sa mayo yi <laughs> eh, Alioune nag damay ñëw dugg ci point bu sensible. Mhm. tey su ma leen woon Alioune. Mhm. lan moo la gën a naqari si sa vie lan nga may wax. waaw li ma gën a naqari sama vie moom bon instant bi pour être franche mooy peut-être ñàkk proche bu la jege donc xëy na mu doon yaay wala quelque chose comme ça. mais excepté loolu gisuma loo xamante ne mën nañ ci teg baaraam ne am naa lu ma naqari ndax xëy na am naa ay parent yoo xamante ne ils m'ont toujours retenu quoi mus xaw ma feneen xaw ma leneen donc téye nañ ma comme niñ ma war a téye peut-être su ma nee naqar sax ñoom dinañ am lu leen metti mais xëy na côté parent bu jege ci yow jóge fi la mais bu weesoo loolu jàpp naa ni daal mënaguma teg sama baaraam que ni dund naa dara lu métti trop parce que peut-être boo juddoo nekk ci sa protection maam mu yar la pas yàq la mais teg la ci yoon jaaral la fi nga war a jaar ba ku la gis peut du la càmm wala ku la gis du la joxoñ donc pour l'instant mënaguma wax dund naa lu ma metti xëy na bu dul lu jege lu nit ku la jege ko fi jóge mais bu weesoo loolu moom mënu ma ne dund naa leen loo xam ne naqari na ma ci ba fi ma toll nii ko ok sa parents yi nekkuñu fii dañoo voyager wala ils vivent à l'extérieur wala. waaw benn parent bi moom voyageur pigeon voyageur parce que il voyage tout le temps li muy nekk Sénégal bëriwul mais ñi ngi am contact ak réseaux sociaux yi mais sama côté yaay moom yàlla dafa def mu jógee fii ma koy ñaanal fa mu nekk gënal ko lool fi mu jógee donc euh, bu weesoo loolu moom ay parents yu restreint la ñu ngi ma téye ma nekk ci ñoom donc sama papa moom new fi day tukki. naa ñoom laa xam ndax ñooy samay papa ñoom laa ñoom laa nekkal quoi donc ay parent moom am naa ci moom ndey muy côté papa ak côté yaay daal. Ah, am na solo sa yaay génn na àdduna mais daa mel ni yëgu ko benn yoon yaram ay parent yu la soutenir. Hmm. am na solo su ma la woon tey lan moo la gën a neex ci sa vie lan nga ma ciy tey. bon li ma gën a neex ci sama vie nag moom mën naa ne passion la muy lii rek lii ngeen gis ni parce que mooy sama quotidien quoi su ma xëyee suba ba ngoon ci laay nekk su ma xëyee balaa may def dara bon moom lay xalaat quoi. pour vous dire benn anecdote lal bi nga xam ne moo nekk sama néeg du ma ci tëdd si suuf laay tëdd parce que lii laay jël teg ko saa yu ma yeew moom laay jëkk a jàkkaar lool quoi balaa may def dara non sérieux non Aliou xaaral yow doo tëdd ci lal mais attends mais mais mais waa chers internautes tamit wax leen ak kii nee du tëdd ci lal ci suuf lay tëdd ak mayoom yi sama lal bi ma moomal sama bopp du ci tëdd parce que lii laay jox cër boo gisee moom laay teg ci kaw man ma tëdd ci suuf parce que pour man mën naa ne mooy sama trésor mooy sama or mooy sama jamaa comme boo amee li gën a am importance yow doo ko teg ci suuf quand même te lii pour man warul tegu ci suuf sama kaw lal lay tëdd man ma tëdd ci suuf saa yu ma yow jàkkaarloo li ma gën a neex daal moo passion bi ma am parce que nit ku ne am nga passion am na ñoo xam ne tuxay seen passion ñii naan mooy seen passion ñii xuloo ñii xeex mais man sama passion lenn rek la mooy droit au but droit ci français la mais wolof mooy dem ci kanam xam nga dox ci yoon bañ a wàcc ci yoon bi te droit au but mooy emblème olympique de Marseille donc je que sama vie neex na puisque maa ngi am Marseille xëy su ma amul woon lii bu ma leneen doon neexal sama vie mën na bañ a neex ku ne mais lii mooy sama passion mooy sama vie. Euh, Alioune sama dernière question moom du lenn waaw man moom célibataire laa ni may waxee yow nii mosuma am jabar aw ma soxna célibataire bu mag laa nag nga demal célibataire. waaw célibataire nga est-ce que yow yaakaaroon na yow sama yi yi rek ah mën na laa xañ jabar parce que lii loo si teg takk jabar. waaw du ma la ne déedéet parce que mayo bi ci gën a tuuti li muy jar 10 la donc mat na takk jabar mais garaawul parce que aussi su may am jabar dama koy tànn parce que su ma amee jabar te bëggul lii moom maa moom nekk ndax maag lii ci biir sans lii mooy loolu donc mooy. mais xaaral. yooy li nga wax nii seetlu nga ko baax sa jab sa sa mayo yi ñoo la gënal sa jabar du question ñoo ma ko gënal sax mais dama xam ne il faut mu bëgg ko quoi parce que lii sama passion la foog mu bëgg ko bu ko bëggul maag moom duñ def ndax lii su ma ñëwee fekk mu sànni ko fee bon maag moom du neex quoi mais attends mbaa yow doo forcer sa jabar a ce que muy sol ay maillot. non dama ko force sax mais xëy na au fur et à bu demee ba ci bi dina ko bëgg te du ko tey parce que bëgg boo bëggee mënoo bëgg ginaar bañ nanam quoi comme ni nga koy waxee. mais question de moom day ànd ak man mu nekk choix rek ñu bokk ko doon mu doon benn. man daal l'homme au sang maillot mi daal jaaxal na ma luy sa mot waaw sama mot de la fin nag mooy euh, di remercier waa KSTV malgré du ñu bëgg sax remerciement ndax ñoo dañ ma naan ñoo bokk mais la fait que ñu déployer tous les gros moyens pour ñëw def ak man euh, émission bi GPS maa ngi leen ci sant di leen gërëm di leen xamal ne nag ñëpp ñëpp ñi nga xam ne am nga sport bëgg nga sport di ko dund KSTV la télévision autrement donc forcément. le sport autrement mi ngi leen di wax que ne KSTV mi ngi ñëw dal ci kaw ñëpp ñuy def sport di leen xamal ne c'est la télévision autrement donc ce sera le sport autrement à la prochaine. waaw Aliou xanaa di ma may benn mayu. non loolu xalaatuma ma jël ma jël xaalis may la moom ma gënal ma may la ko parce que mooy marché du ma ko maye. waaw waaw waaw tamit yéen ko dégg nee na du ma may mayoo xanaa du mere naa ko. <laughs> Euh, chers internautes l'émission tira sa fin lii leen leen indiloon ci seen émission GP Sour comme ni ma leen ko waxee woon rek naanaan laa leen tegal ci taabu bi xam ngeen ne sans mayu réunir ko du ay caaxaan ñun ñoo ko déggandoo neen la télévision autrement Kayz TV autrement jeunesse autrement sport autrement kon nag ma leen di jox dig daje rek ci beneen émission comme ni ma koy waxee saa su ne l'émission tira sa fin lii leen leen indiloon ci seen émission GP Sour ak seen daanaan Alioune Diop borom sama ma yooyu ma leen di jox dig daje ci yeneen i émission ak yeneen i thèmes incha allah.